mbokk yi ñu teew lu ci leeral TV ak leeral point net da leen ak jàmm ci xibaaru bés bi tey ji nag ñu fas yéene ko dooree fële ca Thiaroye sur ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy nappkat yi jamono jii ñuy dund feebar boo xamante ne nag dafa doy waar lool ba tax sax mu tiital askan bay yeewoo foofee ca diwaanu Thiaroye sur Mer mu nekk nag ay nappkat yoo xamante ne ay bés yu ñu génn yëpp ñu ngi dund ak boobee doomu jàngoro boobee jàngoro nag di ay picc yoo xamante ne dafay génn fépp ci seen yaram sonal leen lool seen yaram di tàng ñu bañ a lekk ba ci sax li nga xamante ne moom mooy seen gémmiñ dafa am ay picc mu mel ni nag seen yaram bi dafa lakk loole nag ki nga xamante ne moom moo jiite collectif bu ëmb yëpp nekkee fële ca diwaanu Caaroy ko daal di xamle ay kàddoom mu dénk ko suñu nattangoo yu fare fële ca diwaanu Seneweb lu toll si juróom fukki nappkat jamono ji ñu ngi leen daal di tëj ci ay hôpitaux ngir amal ak xam ne nag boobee feebar mu ngi doore ci Petite Côte bi fële ca Joal nag semaine bi ñu génn daal nañ fay nemmeeku ba tax na sax ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Diop mu ngi xamle ñii di nappkat yi jamono ji ba léegi yëglooguñu ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy mouvement bi ñuy woowee la voix du littoral daal dinañ leen a saisir jëm ci moomi mbir ñu nekkee fële ca diwaanu waaye nag jamono ji feebar bi ñu ngi xamal ne law na ba si sax fi nga xamante moom mooy Bargny xibaaru bés bi gi nga xamante ne nag amoon na fële ca marché Ocass lu toll ci benn milliard ci a tàkk ba jeex ba ba ñu daal di tëj marché Ocass diirub ñetti fan boobee lakk mu ngi amoon démb ci guddi ne moom mooy ca diwaanu Touba bi mbir mi amee nag ki nga xamante ànd ak ki nga xamante moom mooy préfet bu Mbacké Mbacké ak maire bu Mbacké Abdou Lahad Ka ñu daal di dem ci boobee bërëb ngir xool euh, situation bi naka la tëddee ci noonu nag la ki nga xamante moom mooy Gorgui Mbaye daal di jël euh, boobee décision ngir tëj li nga xamante ne moom mooy marché Ocass diirum ñetti fan mu nar a tàmbali nag tey bu juróomi waxtu jotee ci ngoon boobee décision nag li ko waral mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy defkatu ñaawteef yi la ñuy njort ñu dugg ci yooyu bërëb di fa amal ak càcc boobee délégation ba mu jógee ca boobee bërëb dañu fi nga xamante ne moom mooy kër xalif général euh, kullu burit ngir sëkk ak moom ay boobee marché beneen lakk boo xamante ni am na fële ca diwaanu Kolda ñaari doomi aadama daal fay ñàkk seen bakken mu am nag foofee nga xamante ne moom mooy ca Vélingara Yelli boobee lakk nag mu ngi am guddik dimanche jàpp altine ci village bi nga xamante ne moom mooy Vélingara Yelli nekk nag ci commune bu Jalambele bokk ci région bu Kolda benn soxna bu doon wuyu ci turu ay satu ak doomam bu jigéen bu doon wuyu ci turu Jeewo Balde mu amoon benn at la ñuy wax gaal fii ci diwaanu Cap-Vert kenn ci mool yi nga xamante ne nag daal dinañuy rëcc ci bébé Dièye daal dinañu dellusiwaat ci yooyee fee muy xam ne nag bi ñuy doot dugg ci géej gi ak gaal gi mu ngi defoon lu toll ci téeméeri doomi aadama ak juróom fukk bu ñuy ñibbisi nag juróom benn fukki doomi aadama ak juróom benn ñoo daal di rëcc ci boobee Dièye ñu jóge woon nag fi nga xamante ne moom mooy Mbuur dëgmal réewum Espagne ñoom ñooñu ñëpp ñu suux fële nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Cap Vert lim bi nga xamante ne moo ci dellu si néew lool buñ ko méngalee ak ñi nga xamante ne jëloon nañ boobee gaal di dem fële nga xamante ne moom mooy réewum Espagne bëgg mucc tax ñi nga xamante ne nag jotoon nañoo mën a ci boobee gaal daal di fay ba àgg ci plage bi ñenn ñi daal di daw wuti ku leen wàllu ñu dem sax bay naan li nga xamante ne moom mooy ndoxum géej bi ndax ñàkk lu ñu lekk ba ñu ñu ñoom ñëpp daal di sonn teg ci loof ñeent ci ñoom ñu daal di leen a téye fële ca yóbbu leen fële nga xamante ne moom mooy ca Santa Maria ñooñee di rafetlu bu baax a baax taxawaayu sénégalais yi nekkee fële ca diwaanu Cap-Vert rawatina ca capital touristique ba di Praia ay jàmmaarloo yu doy waar la ñu nemmeeku fëlee ca université bu Bambey digg ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk der yi ak étudiants yi ci yooyu jàmmaarloo ñu xam ne fanweeri doomi aadama ak juróom-ñett daan ne si jëlee nag ay gaañu gaañu yu metti étudiant yu bëri ñu daal di leen a teg loxo mu amoon nag barki démb fële ca université Alioune Badara Diop bu Bambey ki nga xamante ni nag moom mooy coordinateur bu étudiant yooyu dafa daal di rek décrété téeméeri waxtu ak ñaar fukk ci ay heures yoo xamante ne dañuy dakkal lépp loo xamante ne dafay jàng foofee ca université bu Bambey sàcc gu metti gi nga xamante ne nag am na ca banque bële di BNDE ki nga xamante ni nag moom mooy vigile ba moo fa daal nag a sàcc lu toll ci benn million ci suñuy koppar ci benn kees bu nekkee foofee ca boobee banque loolee tax sax ba mbir mu daal àgg ci loxol tribunal bu grande instance bu Ndakaaru boobee vigile di wuyoo ci turu nag ñu koy toppee ak sàcc goo xamante ne nag da amal ca bërëb ba muy liggéeyee looy tax sax ba kër gi nga xamante ne nag moom mooy BNDE demoon ca kanamu yoon ngir andi ak leeral jëm ci moome mbir ca ndoxteel ba nag ñu fay nemmeeku ay xaalis yu ndaw yoo xamante ne dañ koy sàcc ca boobee banque saa bu ñu dugalee nag ay koppat ci yooyee kees ñuy nemmeeku ne dañ koy jël taxul nag a benn yoon kii di vigile ba di ka daa dee bàyyi ab puso nag la doon jël def si li nga xamante ne moom mooy scotch ak benn bant ngir tijji boobee kees bi mbir mi amee nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy vigile dañoo dem ci ki nga xamante ne moom mooy seen jiit daal di koy wax jëf yi nga xamante ne nag ñu ngi koy nemmeeku ca boobee banque mbir mi nag mu ngi wone ci ab vidéo de surveillance boo xamante ne daal nañ koy teg ci boobee bërëb kii di ka di tijji boobee kees ngir amal boobee sàcc ba ñu tijji nag li nga xamante ne moom mooy kees ba juróom-ñetti junni dong lañ fa daal dee fekk gannaaw ba ñu ko àttee nag ñu daan ko ñaari atu kaso ak ñetti weer yoo xamante ne da koy tëdd teg ci et benn million ci suñuy koppar boo xamante ne daal nañ koy teg ci am doddam ngir jox ko banque boobee nga xamante ne moom mooy BNDE ca Koungheul nag ay doomi aadama yoo xamante dañu njott ne moo faat soxna bi nga xamante nag ay atam mu ngi toll woon ci juróom fukk ak juróom ba tax na sax gendarmerie daal di leen a teg loxo yooyee ndaw nag ñu njott ne ñoom ñoo amuloon ay na sax benn soxna daal di ci jaare ñàkk bakkanam amal jooyee jëf ba daal faat boobee soxna nga xamante nag dafa doon jaay fëgg jaay ba ñu demee ci seeni kër nag ay fetal yu bëri la ñu fekk ci boobee bërëb mu daal di leen a gën a dugal a jamono ji ñoom ñooñu ñëpp nag ñu ngi ci loxoy yoon mbokk yër ngeen jëf mu nekkoon xibaaru bés bi ñu leen ko doon dégtal ci biir Leral TV ak Leral point net di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ngeen wéy di suivre programme yu Leral